xale bi de mom sol na tey baas bu sañ sé taxaw fay jongoma xala xale bi de mom def na robam buy dàggu di ñew di gën di jongoma ak bari feeling ak bari feeling ak bari feeling te jongoma la xala xale bi de mom sol na baawam bu defé su fes di gën di jongoma saa ko yëgee moom teg ci jiinam laal daal ko passé di gën di jom ma man seetlu naa saabu numéro boo sañ see taxaw di gën di jom ma moo tax bëgguma sax numéro yóbbu sore damay dëkkee xalaat yi dalee nag jàmm si Pikine TV Pikine Bis la première télévision digitale numérique di Pikine tey ñaam mbégte te saa su ne di jàkkaarloo yéen seen émission showbiz showbiz nag li ko tax a jóg képp koo xamante ne ni rek yaa ngi ci milieu show bi dañ doxantu ba sa gàlle wala sax di dalal suñu bi tey nag ñu seet si doomu Pikine doomu Banlieue ne daal mu nekk artiste boo xamante ne nii wéli wéli la ñëpp ko bëgg macha allah dafa wéndoowul ak kenn ndax doomu géwél la nag te doomu géwél dafa war a mën a wéy macha allah ñu ngi maa ngi lay fay Cissé Ba. nga defee nag nga daal di nuyoo ci ngëwal rek ñu tàmbali waxtaan bi. waaw salaamaaleykum d' abord avant tout maa ngi nuyu képp ku ñu seetaan. Mm-hmm. Ah, rawatina nag euh, site bu mag bi nga xam ni ñun mooy suñu tere mooy suñu lépp. Mm-hmm. Mm, nekk ci biir banlieue bi. Mm-hmm. xam nga ñu nekk ak moom mu nekk suñu fierté. macha allah ah di nuyu képp kuy doomu banlieue. Ah, rawatina nag. Euh, suñuy fans ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ci si Eva. macha allah bu nga defee nga daal di nuyu ci ngëwal rek. Mm. tàmbali waxtaan bi. ah baaba mi ngi moora mooy nuyoo géen kuma ñoom la ngoone ji maamam ah baatu jenni maamam moo du mbengay maamam moom de doomi daanan la ñaani ngañ ye jamhuri cho kule gaynaagu naa kontaan naa bu baax a baax bu ko defee rek mm-hmm. mm-hmm. mi ngi nekk doomu banlieue bi nag mm-hmm. dëkk ci banlieue bi juddoo ci banlieue bi yaroo bi nekk doomu Pikine ginnaaw laay waaw yaakaar naa ni eh, fi ñu fekk mooy suñu gox mm-hmm. tey lépp lu ñu am rek ci banlieue bi lañ ko amee mm-hmm. di nuyu nag d'abord waa ginnaaw laay bu baax baax mm-hmm. ak waa Pikine ak waa Thiaroye sant yàlla ak waa Guédiawaye ak waa Parcelles seize communes yëpp ñu ngi leen di nuyu